auzubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam euh, mbokki jullit yi mbokki Touba mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi fii ci Touba ñëw ci dalu gan yi fii ci Daaru Manaan euh, di ma uysi ci màggal gi màggalu Sëriñ Touba bu mag bi nga xam ne wër na àddina yëpp wane daje bi fii di ci Touba. egsi nañ fi nag ci turu El Hadj Moustapha Guèye mi nga xam ne moo jiite association imam ak ouléma du Sénégal man El Hadj Oumar Diène di secrétaire général bi ànd ak délégation imam yi ki di sama wet sama wet nekk euh, imam Mbaye Ndiaye bu Mbaaw nekk it euh, secretaire chargé de relation extérieures bu association imam yi yore it émission yi ci RTS. alhamdulilah rabil alamin ñu ngi sant yàlla egsi nañu jàmm dalal nañu fii ci dalu bi wax dëgg yàlla lu sul sax suñu njor ndax bu ñu fi ñëwee gis ngeen fi ñu dalal muy ci otel bu mag bi fii ci Daaru naan mu nekk euh, lu yéeme loo xam ne yàgg nañ fi dal waaye saa yi ñu ñëwee rek dañuy gis ne yokkute am na ci yokkute am na ci muy kilifa yu yëpp maanaam fi lañuy dal si ganu sëriñ bi tamit fi lañuy dal si ñiy jóge ci délégation yeeg ambassadeur yeeg ministre yeeg kilifa yëpp daal mën a am fii la ñuy dalal kon bu Touba amee lu toll nii ci biir senegal nañ ko sant yàlla ndax ku dugg ci suite fii da ngay defe ne yaa ngi Dubaay wala yaa ngi mag toppatoo bi tubaarkàlla tamit xale yi fi nekk jox nañu seen bopp Serigne Touba ba mu jeex mooy lépp lu yar lii di teggin lii di def lu baax wax lu baax yiw dal dangay ruus sax ndax ni ñu lay teeroo ak ni ñu lay dalalee ci ya maanute ak yaru sa dara du manqué sa dara du manqué wax dugg yàlla ndax gan bu egsee day jaaxle day tumuranke mais boo ko dalalee ba dalal xelam muy ci lekk gi ci naan gi ci dalu bi nit ñi war nañu jàngee ci loolu ndax yar ak tegin ak sutura dafa baax ci dalal nit day dalal xelam ndax gan bu egsee rek li muy jëkk jaaxle ci yoon bi guddaay beeg coono yi boo ñëwee bu ñu la dalalee ba nga toog ba pare ñu jox la fi ngay dalee ci say néeg boo ñëwee ci say néeg tamit wax dëgg yàlla dara manqué fi li nga war a gan war a fekk ci hôtel yëpp mëtale na. kon nag ñu ngi leen di wax euh, jërëjëf di leen wax ne li leen Serigne Touba sant ñu ngi ci ndax bésu Serigne tubaab bi ñun euh, jàpp nañu ne ginnaaw ajug mag. yàlla terale na ko lu toll nii amul fen ci àddina ku am lu amul fen nag na ko téye lislaama moom lii jaayanteeg bopp boromam bu am gradu xaadimu rasul ko loolu rëy na gisuma ñaari nit yu ñaari mbindeef yu ko am ci kaw suuf kon ku yàlla terale noonu ak li mu daj ci jaay pour rek lislaam taxaw pour rek julliti mën a am taxawaay bi nga xam ne di jaamu yàlla suñu borom ci li mu waree ñu am ci liberté bi nga xam ne mën nañ ko joxe fu ne boo xoolee jàq yi xool jumaa yi xool dëkk bi xool mbooloom mi xool nit ñi tey police yëpp ngi fi gendarmerie yëpp ngi fi ministre yëpp ngi fi buur yëpp jaar nañu fi président de la république délégation yi kër sëriñ si kenn desul bu ñu demee ci dalukaay bi ñun jullit yi rek ñoo fi tase di saafonte ci jàmm ak salaam ndax amuñu occasion bu ñu mën a gisante nii bariwul mu dee yenn daje daje yi dañuy daje rek dem mais fii di nga mën a dal ñaari fan ba ñetti fan ba ñeenti fan ngeen di julleendoo di añandoo di reerandoo comme nit ñi nañuy def ca mag tawaaf daal moo fi amul mais julli gi wax dugg yàlla mëtale na béréb yi set na toppatoo bi mëtale na personnel bi ci nekk wax dugg yàlla jëwriñ yi ñu ngi ci taxaw pour rek jullit yi ku ñëw rek dal am xel mu dalit sa ruux dal nga mën a jaamu yàlla ci teeyaay léegi rek la ma ko suma naataango bi di wax ne gën nañu amee toogaay bu mel nii di noppalu ko nii di xalaatee nii di waxtaani nii ci dal kon nag euh, alhamdulilahi rabil alamin daje bi yàlla bu ñu ko uute mukk yàlla nañ ko yàlla barkeelal yàlla nañ ko yàgg fekkee ndax ku toll nii Serigne Touba bu ootee ci lu mel nii pour ñu santal ko yàlla suñu borom àddina bi yëpp ñu ngi koy def fu ne mais fii nag mooy béréb bi wax dugg yàlla ñii ñaan julliti bu ko kenn ñii mënul ñëw nañu ko def foofu comme na ma ko santaane ndax jóg yombul dëkk bi bari na nit mais ñëpp ku nekk ngi euh, nangul moromam mbedd yi lu mu xat-xat ni ñaa ngi nangul seeni morom ndax fu ay charrette daje ay oto daje ay moto daje boromi tànk daje foog mu xat kon tey fii mu ngi mel ni dañuy ñi dem màkk gis nañu mbooloo yi ni ñuy dajee ak fu ñuy dajee ak nu ñuy dajee comme ñu ni neen la rek fii ci Sénégal yàlla defal ñu lu mel nii am na ñu lay rëy rëy rëy te yàlla nañ ko téye te bu ko yàlla bu ko kenn uute incha allah nañu ko def ci Sénégal gi yëpp ormal nit ñi berleel nit ñi dalal nit ñi waxtaanal nit ñi yeet nit ñi gën leen ñaax ñu jàpp suñu lislaam jàpp lii sëriñ si wax ci tarixa yeeg diine ji pour tarix yi pour jàppale diine ji la ndax ñooñu ci téye ñooñu ci tënk bu doon julli dem rek loolu day yomb mais jàng alxuraan bi jàng xasida yi di wérd di tafsir di ñaan loolu lu rëy la ginnaaw aju mag euh, génne asaka saraxe weeru koor yooyu yëpp li ñu sant lañu ci lislaam mais lii def ci bokk loo xam ne ñun ñoo ko moom jéegaane wu ñu ko fenn yàlla ñu ko joxal Serigne Touba mu andil ñu ko jox ñu ko kon nañ ko téye suñu loxo yëpp di ci am mbégte lool di ci ñaar sant yàlla it suñu boroom lool képp ku fi ñëw tànk yi nga fi jox si yàlla na ko yàlla def faru bàkkaar ak fajub aajo yàlla def wér ci réew mi def jàmm ci réew mi defal ko suñuy kilifa ak suñuy njiit def ko si suñuy njaboot yàlla nañu yàlla def ay jullit axan yàlla nañu am ngërëmu suñuy sëriñ sëriñ Touba yàlla nañu ko yàlla fayal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alaaji Oumar Diène secrétaire général association imam yeeg ulema ci Sénégal nekk it kii waree affaire weer bi ci weeru jullit yi fii ci Sénégal alhamdulilahi rabbil alamin ñu koy wax Konakook waa alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di teg suñu nuyoo rek di ko jokk ci nuyoo secretaire général des imams et oulémas du Sénégal nekk coordonnateur croissant linéaire ci Sénégal di alhaji Omar Diène mu jiite délégation bi ñu teewal fi association bi teewal fi président bi alhaji Moustapha Guèye mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci Sénégal ak bureau exécutif bi yëpp ñu teewal leen fi ah ni ko secretaire général waxee rek noonu la ah dañu ñëw ci Touba nag ci woote bi nga xam ne ki nga xam ne mooy xalif général de Mouride muy seen Muntaxa yal na yàlla yokk wéram yokk fanam yokk ñi ay rakkam ci ginnaawam yëpp ak ak doom yi ak yi ak taalibe yëpp seen wér te barkeel ah Sëriñ Touba comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Omar waxee xaadimu rasul ndax léppam da koo joxoon yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba demoon sax ba bàyyi turam tudde boppam xaadimu rasul jawriñu yonent bi sallallahu alayhi wa ci lan ndax teg tànkam fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam kooku nag defe naa ne bi muy def loolu di sanc Tuubaa gii ay dédd rek la woon ab àll la woon ndànd foy foy la woon waaye yàlla def wuyu ko ba tey defe naa ne Touba buñ nee deuxième ville du Sénégal Touba la ñuy wax boo nee dakaar capital da ngay jël léegi sax dem nañ ba Touba mi ngi bëgg raw sax capital bi loolu nag ci ñaanam yu sell mbindam ma ci yàlla mbindam ma ci yonent bi rek la ko yàlla maye loolu le ndax bu ñu seetee mbindam yépp tuddul taggul maamam taggul doomam taggul kenn yàlla yonent bi rek la ci wax ak li mu bind lépp li mu baree kon kooku dafa joxoon yàlla boppam ba mu jeex loolu moo naqari woon tubaab bi ba mu jël ko ne def koy exiler te defe naa ne ñi tubaab bi exiler yëpp kenn dellu si wut mën nañ ne moom moo ci dellu si waat fi nga xam ne fa la cosaanoo muy fii ci Touba kooku nag bisam boobu la ne nañ ko santale yàlla waxut ne nañu ma sant waaye santale leen ma yàlla la wax kon kooku moo woote tey wooteem bu rafet bii ni ko Omar waxee defe naa ne woote tuubaa buñ génnee màkka amul beneen woote ci lislaam bu ko ëpp doole ci àddina bi laa wax nag kooku nag kon ñu xam ne kon yàlla wax dëgg si yàlla am na lu mu ko jagleel waaye nag am na lu mu jagleel Sénégal ndax ku mel noonu nga xam ne aalami la àddina bépp la daj bu ko yàlla mayee réew mu toll ni Sénégal réew mu ndawee ni Sénégal yàlla am na lu mu jagleel Sénégal kon yàlla ñu yàlla fayal Serigne Touba. fayal ko doomam yi nga xam ne ñoo ko wuutu ak sët yi ak taalibe yi akay bi ñu am fii nag amuñu ko fenn mosuñu ko am fenn xale yu am yar yu am teggin comme ni ko Omar waxee lépp a doy néeg yu set lépp a fi nekk bi ñu see rek li ñuy jëkk a àndil ndox mi fruits yi boissons yi doy sëkk la def añ yi doy sëkk ndékki yi doy sëkk la def kon xale yi ñu fi teg liggéey bu rafet rafet rafet la ñuy def ak gan ñi nga xam ne ni ñoo wuy si woote Serigne Touba bi li ci gën a neex mooy Touba amul xejj ak seen Touba ñëpp la ñu woo kuy julli rek ci nga bokk defe naa ne am na ñoo xam ne du ñu jullit sax ñi ngi ñëw tuubaa pour barkeelu si ci woote Serigne Touba bi kon nag ñi ma fi bàyyi ñoo taxaw tey ba loolu mën a am kon ñooñu dañ leen di ñaanal yàlla gudd fan fii ku fi ñëw rek bëgg nga bëgg nga. ndax liggéey bu am bu sell bi fi nekk kon daal nun amuñu dara loo xam ne naqari nañu ci dal yi lépp a doy ndox mi doy na lépp a doy daal amul dara loo xam ne ni manqué nañu kon nañ leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ñaanal yàlla xale yi nga xam ne kat dañuy liggéeyal yàlla liggéeyal Serigne Touba ci ndénkaaneem yi mu ndénkaane wala ñu sax yàlla na yàlla guddal seen fante yàlla wéral leen fii daal Touba daal moom dëkkub xéewal la dëkkub barke Touba bi nag dafa wuyu turam Touba texe ji dafa yi boo ñëwee daal lépp loo soxla di nga ko fi gis kon daal ci euh, ni ko imam waxee ci turu imam yi lañ fi ñëwee woon ah, teew fi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyuwaat nag xalif général di nuyuwaatam sëñ bas Abdou Khadir bi nga xam ne moo yore organisation màggal gi ba mu nekkee ci loxoom ba tey kenn amu fi lu la naqari ndax ndaw yi mu fi teg mate nañu ay ndaw moom it nañ ko ñaanal yàlla gudd fan yàlla oyofale yan bi nga xam ne mag ñi ñoo ko ko dénk muy xalif général de Murit mu yor ko mu yorin mu rafet yaatal ñëpp boot ñëpp uuf ñëpp ànd ak ñëpp yàlla yàlla guddal fanam te yàlla oyofal liggéey bi ci koom di wax salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.